leneen li ma bëgg am ci Mérina ak Talibe Baye yëpp bëgg naa ñu nekk ay nit ñoo xam ne nit ñu am disipline la lañ hmm? disipline lu nekk jaar fa mu war a jaar ku nekk nekk ci la nga war a nekk ah bu ko defee ñu am dëkk boo xam ne dëkk bu organisé wu la dëkk bu am kilifa la dëkk bu am kàddu la parce que bu ñu nekkee Médina te amul kaddu. Mhm. donc daanaka Médina du dara. mais bu Médina amee kaddu te kaddu gi waa Médina yi ñoo ko mun am. Mhm. Ah, dénk ko kenn mhm. am amel ñu suñ kaddu di ñu ko àggaleel. bu ñu neexee ñu tuddee ko xalifa bu ñu neexee ñu tuddee ko lu ñu neex. vous voyez yaa suñ kaddu yaa ñuy waxal. bu bu boobaa dinañ am discipline bu nga xam ne euh, amul dara lu mën a. jafe ci suñ kanam amul dara lu mën a jafe ci suñ kanam mais su fekkee nag di ñoo xam ne indiscipliné logement fou lu ma neex ma def faale wu ma euh, nangam ak nangam ak nangam boobu dafa war a jeex parce que boobu nit ku civilisé wul moo koy def nit ku civilisé dëgg-dëgg dafay dafay dafay am kilifa alors loolu bokk na ci sumay mébét ji nga xam ne bëggoon naa ko yaakaara yaakaaroon naa ko am fii ci na ak taalibe Baay mm-hmm. hmm? euh, bëgg naa am ci Euh, discipline boobu euh, buñ duggee ci jumaa ji ñu nekk nit ñu correct defar sàppe ñu sore ni ñu war a suree mu jub waaye ku nekk rek nga taxaw fu la neex rek ne fa ngay jullee tampi sàppe nekku fa dara nekku fa yooyu itam bokk na ci samay bëgg-bëgg mm-hmm. ah mm-hmm. am jàkk yoo xam ne boo fa duggee rek da gis ne vraiment rafet na Euh, euh, euh, sàppe si rafet na nit ñi seen taxawaay bi yaru na tout ça là yooyu yëpp dañ ko war a am te dañ ko war a am hmm? waaye avec l'indiscipline bi ñuy dund ku nekk da ngay def la neex rek ku nekk da def la neex mm-hmm. donc bon yooyu yëpp bokk na ci sama yaakaaru dund